Bienvenue sur Salam Vision. salaam salaam sama gaay Salam Vision laa leen di tegal ju ànd vision fu sori waaw mooy Salam Vision Salam Vision. moo ngi leen invité tey sama gaay dama ne foofu dina xumb dina neex ñun ak yéen ci biir Touba rek abonel gaaw waral la ci biir Touba waral caax-caaxu seen Touba yëpp ak li waral sababu magal gi lépp soo ko bëggee xam yow mi xamante ne dangaa toog biir Touba noo dem sa tànk dafa woyof yebal ñu ñu ànd ak yow ba fa nga bëgg dama ne ak Salam Vision tout est facile tout est possible Salam Vision ويسرا كل ذي نبل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق لنا لنا كل ذي سهم وذي هرم ويسرا كل ذي تعسير ñu gisoon ni nag daan na génn di am loo xam ne da daan wax li nga xam ne mooy ndongo taalibe yi lan gën leen li nga xamante ni moom lañu am lan la ñu am lu ñu am mu leen gënal màggal màggal gi mooy lan li nga xamante ni moom lañ am te mu gënal leen te gënal leen mooy li nga ne moo leen gënal tabaski gënal leen doo mënta gis parce que màggal Tuubaa mooy seen tabaski kon maanaam loolu dañ ci delluwaat di ci gën a santaat baax a baax xam naa nag Mbacke Balla nag xaw naa waaw buggu woon wax nag waaye nag xam naa ni dañ koy jëli ji taalibe sëriñ Dakom Mbacke yëpp booloo muy euh, fii ñu nekk Afrique Sénégal Euh, Europe ak Asie ak mën ci doon ñu boole lépp ñu dénk ma ko ma doon jëwriñ bi ñu leen di siyaar bu baax a baax. tey jii ñu gis ne taxawaay màggal gi tey jii maanaam yeneen kenn ëpp li nga xamante ni moom ngeen walloon mooy maanaam bokk talibé yi ñoo la dalal ngeen bokk talibé yi na xam a ngi daan toog di xaar bu affaire demee ba tel ko donte màggal gi tëdd la ngeen ne ak mbokk talibé yi nga xam ne ñu ngi fi toog tey di xaar sëñ bi waaw dañuy santaat Seexul Xaadim rek dañuy santaat bu baax a baax a baax ndax sëñ bi yaakaar naa bi muy dem ci géej gi la woote woon ni sant le leen ma waaw kon nag du ñu mën a def lu dul sant santaat suñu borom bu baax a baax te xam ni màggal dañ ne ci ko dund rek dund te màggal gi sëñ bi woote màggal lay ne leen ma suñu borom moom la woote kon amuñu lu dul di ci def ay benn rek dalal mbokki taalibe yi kenn ku nekk rek yëg ci boppam waaye nag ñu def ko ci ci ci ci sunna ci ni nga xamante ne noonu la ko sëñ bi bëggee woon ñu defalee ko ko mooy kenn ku nekk sellal sag ñëw te booy ñëw nga jàpp ne damay màggal ci waaye ak màggal suñu borom dañ koy màggalee ci jàng alxuraan jàng xasida tagg Seydina Muhammad ci meloom yi te nag ku nekk xam na ni Serigne Touba lépp lu mu am mi ngi ko amee ci yonante bi ndax boo déggee muy wax lil Moustapha naweytu maayi jadidu sunnatul xara wa inni ahmadu kon dafa ñëwaat di yeesalaat sunna sa rasulilaay kooku nag yaakaar naa ni tey moo fi teewal rasulilaay kon suñu rek dañoo war a delluwaat suñu bopp ci suñu borom kër sëñ Tàkku gii de lépp luñ fi dund rek dañ koy dund ci na lépp luñ fiy teg suñu tànk rek dañ koy teg fa seexul xaddim joxoñoon ñu pour ñu teg fa suñu tànk kon màggal gi daal santaat nañu daal bu baax a baax waaw ndax tey ji waaw ndaxte tey ji daanaka su mbiri demee ba yegg si fii maanaam mbokk taalibee li nga ne jëfe nañ ko ci li nga xam ne mooy lu jógee ci ndigalu sëñ bi mooy maanaam sax li nga ne sëñ bi da koy wax mooy maanaam jëm leen ngeen jàmm ji yàlla di leen jàngal alxuraan di leen ko sosal tey jii ñi nga xam ne tey jii maanaam dañuy ñëw jóge feneen ñëw ngir màggal si maanaam am na ñoo xamante mën nañoo ñëw daan ne dañoo màggal si màggal si mooy am dañu ñoo jël seen mbalaan teg jël seen lépp teg ne xam nga topp sax ne maanaam jotu lekk instant yi a gëstuwaat sëñ bi ngir a euh, jamono ji day toll foo xam ñu bari duñu xam nu mu demee wala duñu xam lu bari mais ñun taalibe Sëriñ Tuubaa yi ñoo war a doxee noo xamante ni képp ku fi ñëw ñun ñoo lay xiirtal ci bëgg Serigne Touba ñoo lay xiirtal ci bëgg yàlla ñoo lay xiirtal ci liggéeyal Seydina Mohamed ndax boo xoolee démb fii ñu nekk dafa nekkoon mbaar moo xam ne gis nga décoration bu mag lañ fi defoon ci ci kër gi daayira Pikine bu Kama Xat Kunta bu Pikine jiite ko woon muy ci njàngum xasida ci wàllu bernde léegi nag loolu ngay wan ki nga xam ne dafa ñëw wàlli ci ak màggal loolu mooy gën a tax mu gën a jox gëdd lan mooy màggal waaye tamit mu gën a nekk taaliba boo xam ne dafay bàyyi xel ci ci li mu nekk waaye nag bu fekkente ni euh, màggal gi dañuy koy teg ci lekk ak naan rek naam ci ak màggal la bokk ndax bernde la ñu wax waaye nag dundal guddi màggal bisu màggal gi nga jàng ko alxuraan jàng ko waaye nag def loo xamante ni dina gën a valoriser bis bi ba nga xamante ñii ñëw ci bis bi dinañu mën a génn waxtaan ak mbooloo mi def loo xamante kenn ku nekk dina am ak xemmenteef wala ak bëgg goo xam di nga ko bëgg bis bi ba génn ci mbooloo mi ngir ñu mën laa wan mën la mën la tegal li nga xamante mooy njàngaleem seexul xadim kon jàpp naa daal murit yëpp fu ñu mënti nekk dañoo war a meloo melokaan woo xamante ni ku ñëw rek jàng ci ñoom lan mooy seexul xadim ndax képp koo xam suñu borom mën na laa dimbali ba nga aw am taw féexe xam tuuti ci seexul xadim rek ya am ñu yaakaar ci yow ne kuy kuy kuy kuy am texe ngay doon àdduna ak àllaaxira am na ñu commenté suuf ne lan sëñ Touba lu la defal waaw sëñ Touba nag moom <laughs> loolu daal xam naa ni day diis ñu wax ko. mais nga ñamal ñu ci tuuti parce que gaa yi mm, li li tax day diis ñu wax ko mooy dafa mel ni suñu roo ci suñu yaram mënuñu koo làmb di ko daj dañ koy yëg rek dañuy yëg Serigne Touba. barki sax dañ koy yëg dañuy yëg Serigne Touba rek mais lim ñu defal suñu làmbañ mënu koo tudd. ci yëg-yëg bi ci yar bi ak ci teggin bi ak ci jëfin bi nga xamante ni maanaam day nekk ci yéen. bu ngeen gisee ñenn ñi nga xamante ni dañoo war a ñëw ngir war a gëstu loolu noonu ci yéen te xëy na léeg-léeg dana tollu jamono joo xamante ni da ngay gis ni xet ko ci tolluwaayam te fekk na xëy na sëñ bi def na ci moom loo xamante ni yow la ngay toog di ko wëji sëñ bi mu ngi ci moom te boo ko gëstoo ci moom fekk ko ci moom tey ji léegi dañee kàddu bi rek ñu bàyyi waaw dama leen di wax ni daal ñaar yi dafa taxaw dañ leen wax bi xal bi wali saani li nekk ci ci ci ci ci xolu nit ki dafa war di feeñ ci làmmiñam waaye tamit di génn ci ak meloom ci ci ci jëmmam ci li muy sol ci melo ndax nag man damay faral di wax ni nit ki yiw ba nax ma moo ma gënal nit ki nga xamante ni maanaam donto xolam rafet na waaye melokaanam boo ko gisee doo ko doo doo am bëgg ci moom kon nit dafa war a rafetal euh, melokaanam waaye tamit setal xolam kon moo tax ñu doon wax bi xal bi wali saani mooy li nekk ci xol bu rafetee dafa war a feeñ ci jëmm waaye li daal nag yëpp dolliwaat santaat seexul xadim santaat seexul xadim te xam ni mooy borom jamono liy wéral nag ni mooy borom jamono bu soxlaa ñëpp ñàkk tey boo demee màkkatal mu karam gee nga xamante ne ñun ñëpp moom la ñu yaakaar nga xam ne néeg boo xamante ne yàlla suñu borom moo ko fa samp la dem ci ci ci ci ci ci ci ak ak aj matul 3 millions wala 4 millions te bu màggal jotee nga mën a recevoir 7 millions fu nekk ñu koy jóge ci àdduna bi kon ku nekk war na xam ne seexul xadim moo fi nekkal rasulilaay loolu laa koy tëjee di ñaanal sëriñ Tako Mbàkke Fàllilu mu sëriñ Fàllu mii yal na fi yàgg te wér ndax bu fi yàggee te wér ñëpp ñu am taw feex di fàttali taalibe yi nag ñu na leen bu kenn yàkkamti jamono ji lu fi dal nit yàkkamti moo ko teg bu ñu yàkkamti nañu xam yoon wi ñu war a jaar jaar ci te nag fexe ñeme suñu ay kilifa te nag lépp lu ñu digal bu ñu xalaat lu tax lu tax ñu sant ñu ko déedéet nañu ko jëfee rek ndax bu ñu ko jëfee boo ëllëgee lépp lu ñu bëgg mu yombuñu kon yal na defal dégg ak topp defal ñu saxaadatu daarin ci barke Seexul Xadim macha allah ci barke Seexul Xadim yéen a ko dégg donte kilifa gi wax na moom mi nga xamante ni moo jiite li ne moom mooy xam nga maanaam adduna bi moom daanaka waaw nañ nekk ci mbir rek ndax sëñ Tuubaa def jërëjëf ñu ngi lay siyaar. ñu ngi leen baax di leen siyaar di leen delloo siyaare. waaye yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant suñu tubaab bu baax gi boobu léegi yéen ko doon waaj. màggal gi démb la woon tey tamit nag daanaka lépp tamit ci bisu màggal gi nga xam ne semaine bi jeexul tamit màggal gi daanaka jeexul maanaam yëg-yëg bi ngeen am ci tolluwaayu màggal gi lan la. kon ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax di leen ñaanaan ci barkeb Cheikhul Khadim bis bi nga xam ne weesu nañ ko mu bisu màggal gi yàlla nañ ko war at yu bare bari te ibaadaat buñ ki def rek yàlla na ko sunu boroom nangu te yàggal fi Cheikh Mountakha Mbacké yàggal fi sëñ sëñ Cheikh Mouna Fall ak sëriñ Abou Baraka ak njabootu sëriñ Fallou gépp rawatina nag sëriñ Cheikh mi Mbacké ak sëriñ Takko Mbacké magam di baax ji gannaaw nuy dellu sant yàlla rek ndax bis bii nga xam ne nii mooy bisu màggal gi di bis boo xam na nii bisu ñaan la bisum nangu ñaan la ndax sëriñ bi woote gi ci woote woon njort nañ ni woote bu bu matale la ndax wax nañ ni moom moo ko daan defal boppam ba ci yàgg mu diggal ko mag ñi kon bis boobu bu fekkee dikk na fekk ñu ci fekk yàlla may ñu xéewal ñu teew ci dañuy gën a sant yàlla yëg-yëg gi nag mooy delloo rek xam ni ay dong lañu ab donga nag dafa am loo xam ne moo koy mooy firndeel ak nekkam mooy jëfee ndigal bàyyi tere te kenn ku ne xam ne sëriñ bi dafa waxoon ne bis bu ñëwee da nga ma gi sant yàlla kon mel na ni la waxoon ci ci moo dikkaat mooy sant yàlla gi li ko dalee ci ginaar ba ci gëléem bernde ak jàng alxuraan ak xasida salatalam istighfar yàlla dogal nag moom ñuy santaat sëriñ Muntaxa bu baax ngir taxawaay bi nga xam ne màggal gi am na ko ren mooy liggéey bi Serigne Touba maanaam waxoon ni sama mbir sor robal la mu war a ba noppi saa yu ma tàllalee su waree weex day weex su waree xonq day xonq kon lii tàllub Serigne Touba la kon nag ñu ñaan sunu borom maanaam suñ mun ndaxaa yàgg fi te ñu fekk waat ay màggal yu bari bari bari bari incha allahu taala loolu rafet na lool waaye nag am na leneen loo xamante ne nag nit ñaa ngi koy laaj ne nañ jëmm ji jëwriñ ba laajal ñu ko lan la ko Serigne tubaa defal yée li ma Serigne Touba defal ma ko wax barki Serigne Touba sëñ Touba sëñ Touba ci boppam lan moo tax sëñ Touba bool ma ci boppam lan lan ndax du juddu du mën du am am du doole du mën du am doole du du doole waaye sëñ Touba jël la boole ci boppam weesuut foofu weesu foofu dafa la ngay jànkatu xasida loolu ku ko sëñ Touba def rek amoo amatoo payam ñun moom amuñu payu sëñ Touba wallaay azim moo tax lim ñu defal mënuñu koo wax ci ci micro waaye dañ koy yëg suñu biir xol waaw suñu lañ koy yëg moom. am na loo xam ne dama koy sàtti laaj la ko tuuti la ma doon sëñ saa yoo gisee rek rek. waaw moom Balla Aïssa Serigne Cheikh mi day sunu baay nag day sunu baay ndax ñun mooy sunu baay di sunu ndey di sunu maam di sunu ndiyaay am ñu moom luñ mel mooma luñ xam ma mooy sunu deret di sunu xol wallaay azim te maanaam war na baay bu gisee njabootam day bëgg. loolu rek la waaw bu gisee njaboot day bëgg ndax sëñ Cheikh mi dafa am baat bu ñuy wax boobu solo dafa ne du ma leen bàyyi du ma leen sànni du ma leen wàcc lu ngeen mel neex na ma bu ngeen baaxee gënal ma bu ngeen neneen leen tamit man ak yéen kon nag bàyyi bàyyi bu mel noonu ku ko am da war a jàpp bu baax a baax te sëñ Cheikh mi daf ñoo taxaw ci saay rek baatin wallahi azim ay tuut tànkam ay tout tànk maa ngi gis yéen a ngi yéen a ngi dugalante di gënalante ba kenn xamewul kii mooy doomu seen biir kii mooy taalibe seen biir maanaam tolluwaay bi ak yëg-yëg bi nga xam ne yéen a ngi koy amante seen biir maanaam yëg-yëgu diisaay bi lan la. waaw loolu loolu moom nammeelu sëriñ bi la te eh, ci waajuram bu baax Cheikh Modou Faral la tàmbalee ndax sëñ Fallou dafa waxoon ni du ma doom ju bëgg a donn du ma bu bëgg a seex man maa ngi ci bàmba ji rek sëriñ bi nag yem maanaam wutal doom bi nga xam ne doomi deretam la ak doomi xolam yi ñun ay doomi xolam lañu kon benn rek lañ war a doon te benn dong lan doon nag moo tax xàmme gi sax doo ko def ndax ñoom ñoom ñi nga xam ne dañ leen tudd di di di tudd sëriñ bi ay taalibe lañ def seen bopp waaye def ñu seen bopp ay sëriñ moom wallaay azim loolu rek a tax. dañuy kàddu waaw xanaa doole sant rek doole sant bu baax a baax ngir eh, sëriñ bi may nañu ci boppam at mu jot ñu taxawal. siyaar boo xam ne nii eh, kuréelu fédération boo xam ne bu sëñ Fall lañ ko tuddee kuréelu fédération boobu noonu yàlla dafa dogal ni ren ji mooy juróom-ñeenti at ñuy def siyaar di jóge ci Serigne Cheikhou Mbacké di ànd ak njaboot ji di dem ci Serigne Takku Mbacké mag mu ju baax ji ndax siyaar boobu kat bi nga tàmbalee bi ñu sëriñ bi weeru safar gi bu teroo day joxe ay lim alxuraan xasida istigfaar salaatu ala nabi ñun ñu waajee ko màggal gi yàlla dogal bu ñu dagalee lim yooyu ba noppi dañuy dagale xéewal goo xam ne moom lay àndal ñu demee bañ demee bu njëkk ba jébal ko ko def nañu ba xam dem ngeen ci alaj tàkk ko ñëw ko déedéet mu ne jug leen ñu dem bañ demee ci sëriñ tàkk ko daf ko ne ñun doon ngay mbàkke ñoo def lii ci sa su maam bii loolu nag sëriñ bi dafa ñuy jàngal ni toppante daa war ci njaboot toppante daa war ci njaboot kon bu yàlla dogalee tamit maanaam kër sëñ tàkk ko ak kër sëñ Cheikh mi ni ko sëñ tàkk ko ni benn kër la bu am ñaari dugguwaay waaye njabootu sëñ Tako ak ak njabootu sëñ Joxum mi benn njaboot la ndax lépp sëñ Fallu la kon loolu ñu ciy sant yàlla bu baax a baax tey jii nag léegi-léegi leen duggee ci sëriñ Seexu mi jébbal ko liggéey bi mu digal ñu ñu ànd ak jëriñam doomam ju baax ji Baye Galas moom sëriñ Seexu Mbàkke ak Baye moom sëriñ Tako ñu ñëw jël liggéey boobu jébbal ko sëriñ Tako Mbàkke moom sëriñ Fallu moo waral suñu teewaay ci kër sëñ Tako gi incha allahu xam naa ne naa ne nag des na ci kanam tuuti pour ñoom ñu dugg si ngir fas yéene def li nga ne moom mooy ziar yi tey ji ñu war ci ànd ak yéen tey ji ci biir tey ji maanaam yéen ñi di ñuy suivre tey jàpp leen ne tey ji ku ko musul gis si jëmmam si kattanu suñu borom ci biir Salam Vision dinañ la wan kan mooy seen tàkkoo ci biir euh, ci Vision dinañ leen wan mbokk talibé yi nga xamante ni maanaam leen doon dégg te mënuñu leen gis ñun nag dañoo sopp parce que li tax ñu ne dañoo sopp mooy dañoo nekk ak ñoom man ak ñoom déggoo ak ñoom waaye dafa am loo xamante ne nag ñun ñoo am fu la ne dañ koy jëli ji nag ci ñoom kon nag loolu nag dañ ci sant yéen ko dégg nag Sall Fall yaa ngi noonu nag dugg si na maanaam comme que sëñ baa ngi waaj a dugg si xam na waaw daanaka sëñ bi yegg si na foofu noonu ñu bàll nga xam ne tam ñoom ok mbokk yi asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar te di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di nuyu bu baax a baax a baax eh, yéen ñi nga xam ne yéen a fii te di leen di ñaanal bu baax a baax seen télé bi yàlla yóbbu leen fi ngeen bëgg a barke Cheikhul Khadim. Mbacke Balla tey jii eh, daanaka mbokk taalibe yi ñoom ñu ngi ci kër gi nii tey ji wàccaay màggal gi ba démb li nga xamante mooy màggal gi daanaka li des ci semaine bi yëpp mën nañ ne wax ni saa yu ñu xëyee rek ndax murid moom daanaka saa yu xëyee rek am mbégte rek daanaka mu ngi màggal ci biir xolam tey ji tolluwaayu màggal gi ak yëg-yëg yi nga xam ne tey mbokku talibé yi ñu ngi ñëw tey ji ngir di bëgg di jàkkaarloo ak yéen donte gisante ak yéen day jafe parce que màggal gi bu tollee fii nii pour nga gis kilifa yi nii day jafe waaye tey ji tolluwaay yëg-yëgu màggal gi tey ji man naka nga ko gisee ak mbokku talibé yi Euh, ganna ba ñu nuyoo ba noppi màggal gi nag euh, li ca gën mooy na ko borom bi santaane woon rek borom màggal gi ndax njëkk ñu koy woote fii ci Touba doon na ko def euh, ki nga xamante mook ko fi woote muy Cheikh Mahamadul Fadal di waajuru Alaaji Sëriñ Tàkko mii ci biir mooy ki nga xam ne moo ko fi woote kon nag li ci ëpp solo te am ci njëriñ mooy ñu def ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee woon te itam defe naa ne gis nañ ko bu baax a baax ci kër gi ci mbokki taalibe yi ndax bu dee ci wàllum liggéey bi liggéey nañ ko ci wàllum bernde yi itam nekk nañ ci bu baax ba dara manquéwul ba ku fi ñëw rek di nga gis sa bopp bu baax baax a baax ñoom itam ñu nekk ay jàmbaar wax dëgg yàlla ñu nekk ay jàmbaar yoo xam ne ñoo ngi leen di sant bu baax baax ci liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey nañ ko ci kër gi ndax bu ñëwee rek noppi nañoo noppalu ñoom ñu ngi ci waañ bi ñenn yaa ngi ci waañ bi ñenn yaa ngi ci yeneen ak yeneen dara daal loo xam ne nii dina jóge ci wàllum rek du fi manqué loolu tamit ñu leen sant bu baax a baax ndax Serigne Fallou Mbacké da daan wax naan Euh, taalibe Serigne Touba yi ku leen woo nanga xam nañ leen doyee ndax ku leen woo dinañ ñëw ku leen laaj dinañ joxe te loolu defe naa ne feeñ na fi bu baax a baax a baax ñoom itam ñu nekk ay ndaw yu am ñu jom euh, te di ñaanal bu baax a baax a baax barkeeb Serigne Fall wàcc ci euh, seen kaw. tey jii ki nga xamante ni maanaam tey jii mooy kilifa gi kilifa sëñ Tako mi nga xamante ni tey jii maanaam sëñ Fallou mooy waajuram sëñ Fallou kuy waajuram ñu ne maam Bamba borom bis bi maanaam tolluwaayu màggal gi. ci yëg-yëg waaw ci wàccaay màggal gi ci tolluwaayu màggal ci yëg-yëgu màggal gi tey jii maanaam boo ñuy wax tuuti ci ki nga xam ne tey mooy sa waajur ci yëg-yëg bi nga xamante ni maanaam da koy am ci bis bi lan la mën a doon. waaw moom mooy yëg-yëgu murit rek yëg-yëgu murit murit yi moom defe naa bu màggal gi jubsee ñëpp ci bokk benn yëg-yëg bu ñu am mooy yàkkamti mu ñëw te bañ mu gaaw a jeex loolu nag dafa nekk ak fay ci sëriñ bi ndax sëriñ bi lu mu mas a jëfal yàlla rek la ko yàlla fayee loolu bu koor gi masaan a jub rek dafa daan bég lool ba mag ñi sax ci boobu lañ ko daan gën a dem ci moom ngir di ko wax seen i soxla mu leen koy fajal. bu koor gi masaan dem ba cate mu metti ko lool lool kon fay na ci murid ñi ndax bu màggal jub see da ngay gis mbégte mi ci àndal ba mel ni daa da gis ñoo xam ne dangay ngay jàpp ne sax dañoo wérul euh, bu waaj a jeex itam gis nga euh, naqar bi nga xam moom ci àndal loolu lépp daal feeg yàlla suñu borom la ndax yàlla moom ak fayam faw mu ëpp xelu doomu aadama ndax moom mu am lépp kon nañu xam ne daal lépp daal ci feeg suñu borom la tabaaraka wa taala te ñaan bu baax a baax Serigne Touba jëm boobu nañu ko yàlla suñu borom fayal ndax jëfam rëy na ci ñun wax dëgg yàlla waaw. lan ngay gën a soññaan mbokk taalibe waaw xanaa ñu góorgóorluwaat baax a baax rek ndax man mii di wax ci mbokk taalibe laa bokk léegi li ma leen wax daal mooy ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax te xam ne ci liñ nekk mooy lu baax waaw nañ jëfe ndigal te bàyyi tere ndax sëriñ Touba dana wax naan ndigal leeru timis la maanaam ndigal leer fajar yàgg lënd mu fajar bokk yàgg-yàgg ci lënd ci leer a jëm lu dul ndigal nag moom leeru timis la te leeru timis yàgg mu ngi nii ci nekk yàgg-yàgg diggante bu gàtt mu dugg ci lëndam kon nañu xam ne daal loolu moom euh, lu mat a bàyyi xel la nañ ko jëfe bu baax a baax rek gën a góorgóorluwaat gën a laxasuwaat te xam ne lu fu dul Serigne Touba du la jariñ waaw nañu xam ne suñu lépp tey ak ëllëg Serigne Touba te gëm dafa foor dañ koo gëm nañ ko liggéeyal suñu kim ci lay ñu mën nañ ko ko defal waaw ndax mënuñoo defa defa def def ba dab ak xam ci waaw ñu ngi doolee sant bu baax doolee sant yàlla mi ñu booleeg Serigne Touba ñu xam bu baax a baax ne am nañ koo xam te ñun rek la ko yàlla jox te ñun rek ñoo ko mën a am waaw ñu doolee sant bu baax rek. am na ñuy commentaire ci suuf nee nañ laajal ñu Mbàkke Balla mi nga xamante ni maanaam sëñ Fallou maamam sëñ Touba mooy maamam tey ji ñoom koo ci wax rek ci Mbàkke Mbàkke yi tey ji ñu ne la man de sama taalibe waajur la sama taalibe waajur te tey ji yéen da ngeen waroon a toog ci photo yi toog ci biir kilim yi mbokk taalibe yi ñàkk ñëw indil leen pour yëkkati jox leen ko tey ji yéen yéenee taxaw di dugg ci biir waañ yi di ko ñàkkante yéen ak mbokku taalibe bi est ce jotul léegi ñu ci bañ a léegi jàngee ci loolu xam-xam waaw loolu fan ko jëlee mooy ci Serigne Fall ndax dafa am benn bis muy nettal ci kasetam dafa bari woon lu mu doon bind leetar daan ko jox baayam Serigne Touba doon ko wax naa dama laa bëgg liggéeyal loolu lool mu ko fekkee fa njaareel doon ko wax naa ko ba Serigne bi woo ko ci njaareel mu ne ko euh, loolu ñuy wax sama diggante yow muy ak njuréel jaay naa ko jëndee la nga xam moom nga amee muy ak taalibe kon defe naa am xel ndax sëriñ bi daan wax naan bu leen jàppee aw sant muy seen sëriñ ndax sant moom ku ci jàppee sëriñ yaa ngi def loo xam ne a ah, warul la sëriñ ci jikko lañ koy tànn waaw ñun ñëpp dañoo fas yéene ànd ak mbokk taalibe yëpp ndax dañoo gis ku ñu doy ci biir muy alaaji sëriñ Sakko ñu gis ne li maamu bu digle yëpp mi ngi ci waaw li maamu digle yàlla suñu borom digle ko tey benn la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle ko lépp ci la nekk waaw kon ñun di xëcc ak ay sëriñ ak yooyu te am ko mën naa ñàkk waaw ñun daal ay taal bi leen façon ñu doon ba at mi tukki rek waaw incha allah Mbacke Ba ñu waaw ñu ngi ñu ñaanal jàmm baax a baax a baax tey kontaan bu baax ci yëf yi ngeen di def di ñaanal bu baax seen télé bi àgg fa télé yu mag yi àgg di jeexi Xaadimu Rasuul dégg nañ lool ci yéen jërë ngeen jëf yéena ko dégg Mbacke Balla dañ koy bàyyi rek moom mu yeweeku daanaka loolu boo ko déggee mooy maanaam waaw ñoom ñoom seen kàddu rek baatin la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 wala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman barke Cheikh Mamadou Fadil Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki julli di fi teew mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen baalu àq den ko baal di ñaan yàlla ñu saa borom wala jéggal di jiital ci nuyoo ak siyaar yi sunu kilifa gi toog sëriñ Tàkko Mbacke moom sëriñ Fallu di ñaan Mbacke yàlla na saa borom wi te yàggal la fi lool te wéral liggéey bi nga xam ne nii yaa ngi koy defal sa maam ju baax ji suñu borom may la ba nga yeggale ko ak sa sago ak dongo yëpp ci barke Serigne Fallou di ñaanal sa rakk ju baax ji Serigne Cheikh Mbacke di ko ñaanal sa borom guddal fanam teeral ko ba yéene yi mu am ngir liggéeyal ko sa waajur bu baax ba te mu ànd ko yow ak njaboot yëpp ci barke Serigne Fallou di jël nag ñaan yooyu di ko njëkkee ci xalifa kullu am bi tarata muride Serigne Mountakha Mbacke di ko ñaanal sa borom guddal fanam te yàggal ko fi lool mu yàgg jiite yoon wi te def ci ay ndam yu bari ci barki Serigne Fallou mook fépp foo xam ne Serigne Touba def na fa dara rek ñoo ngi ko ci ñaan ci barki Serigne Touba gannaaw loolu nuy siyaare sunu jëriñ yi nga xam ne ñoom lañ feggool muy Baye Galas Mbacke moom Serigne Cheikh Mbacke nga xam ne moo jiite liggéey bi mook Baye Galas moom Serigne Takko siyaar baax sunu sunu sunu Serigne Sëñ ak mbokk taal bi yëpp yi nga xam ne ñoo ci biir liggéey bi gannaaw loolu nu fas yéene incha allah jébbale liggéey bi nga xam ne nii mooy liggéey bi nga xam ne mooy kuréelu fédération Serigne fallu boobe ba tey ñu ne ci liggéey booba ndax yàlla dafa dogal ni bi weeru safar wi teroo ndigalkat dafa wàcc jaar ci suñu jëriñ ñi muy Baye Galas Tàkko Baye Galas Moussa Ndiakhou mi ngir kat ay limu alxuraan ak istixfaar ak salaatu ala nabi yoo xam ne diglu digle woon nañ ko ngir ñu waajee ko bis bi nga xam ne mooy bisu màggal gi di di bisu sëñ Tubaa ba mu ci jotee ndigal li ñu rotal ko ci. maanaam képp koo xam ne bokk nga ci fédération bi nga féete euh, euh, Pikine Serigne Ibra Fall jiite la nga féete benn baraak sëriñ Modou Dia ak ñoom sëñ Massamba jiite la nga si féete Thiès ñoom sëñ Babacar jiite la wala nga féete euh, Touba ku mel ni sëñ Lamine ak ak sëñ Leyti jiite la fa. loolee lépp ñu àndandoo ko nag ak waa kër Serigne Tàkku gi ci njiital Serigne Cheikh Dioum mi nga xam ne moom mooy. jëwriñu liggéey bi gannaaw loolu ñu ko defee ba noppi tamit ñu woo suñu jëwriñ yi jël ko laytaayee ko addiye ji nga xam ne saa su ne moom la ñu dégle ngir liggéey boobee mbàkke ñëwoon nañ fi daaw ñëw fi ren yàlla ñu fi ñëwaat ay at yu bari di la ko di fekk di la ko jébbal liggéey bi ni lu ko diglee woon noonee rek lan ko defee mooy da ngeen a waxoon yàgg sarak ju baax ji soxla wuñu mbo mbooloo waaye li ñuy soxla mooy ngeen booloo ndax kat bu ngeen boolee noppal bu ngeen melee neen tamit dañuy ànd ak yéen waaye du ngeen mës a wàcc kon nag booloo googu ngeen digal ca loolu lañ ànd mooy ànd bokk ndey bokk baay dimbalante ci lépp loo xam ne lu baax la kon nuy doon ubbi liggéey bi rek ndax eh, moom ni ñu waxee jëriñ sëñ sëñ Cheikh Dioum mi yàlla dogal ni moom mooy jëriñu liggéey bii nga xam ne mooy kuréelu fédération Serigne Fallou kon nag moom dañ doon koo doon kiiwee rek moom bu amee kàddu yum ci kii rek mu dëggal ko waaye ñoom daal jël ak cant goo xam ne mbàkke sant nañ la ko bu baax ndax li ñu waxoon mooy day képp ku ci bokk na ci góorgóorlu ku ci bokk na nga fexe ba bokk ci ndax ñariñ laañ ca kanam ñun de yokk nañ bu baax yokk nañ bu baax mbàkke te loolu yàgg sa rak ju baax ki rek yéen ñu ko ñaanal kon nag yàlla suñu borom guddal seen fan te wéral leen bu baax a baax a baax ci barkeb Serigne Falilou كل ذي سهم وذي هرم ويسرا كل ذي تعسير di sant it Serigne Touba di sant it Cheikh Modou Fadal mii nu si boole di ko santale ñëpp it nag di dugal ak cantam ci moom mu dugalal ñu ci cant gii nga xam ni moom la Serigne Touba santaane ba dajale nit ñi fan yi yëpp dem ak tey ci dëkk bi fan yi yëpp sax di sàkku ñu bokk ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha sama borom yàggal ka fi dolli ko wér àggaleel ko yéenam yëpp te bàyyi ko ak am xelam defal ko mbooleem njaboot ak borom Touba gi di ko ñaanal Cheikh Aboul Baraka moom Cheikh Mamadou Fadal ak njaboot ak alxaaji Fallou Gueye gépp ak ñun dong yëpp di ñaanal képp koo xam ne bëgg na sëriñ Touba sa borom defal la tawféex ki ñëwoon ci màggal gi mbaa nga amoon yéene yal na la yàlla fajal say aajo barke borom bis bi yal nañ ko teewe at yu bari te saa bu ñëwee itam dàqal ñu barke Cheikh Modou Fadal sëriñ bi nee na mu ngi yëkkati ay kàddu yu gàtt rek dafa mel nii ni ko sëriñ mataar mi waxe mënta ñàkk bu nu waxee ba noppi ñu mottali si ay kàddu rawatina kàddu yi sëriñ Fallu wax nga xam ne soññee la ndax nii mu waxee dayoo bi mu toll noonu la waxee waaye mbubb la moo xamee ni ku dib taalube mën nga koo solal sa bopp muy doonub taalube nangoo am kilifa nangoo toppee loolu rek nag mooy yoon wi kon jërëjëf sëriñ Fallou yàlla na leen yàlla dafi mag defal leen ak taalibe te guddal fan yi tam ànd ak wér ak wërsëg barkeb sëriñ Fallou la ca dolli ko waat it nee na mën naa wax ni kaddu yii muy bëgg a yëkkati sa làmmiñam moo koy tudd waaye kaddu sëriñ Cheikh Oumy la ndax bu nu bokkee lii nu bokk seq lii nu seq mbooloo mii di benn kenn ku ne am koy tuddoo ci ñun ngeen boole seen bopp sëriñ bi nee na loola moom noppale ngeen ko ko ñu nii nii tam noppale ngeen nu ko ndax sëriñ Seex sunu borom da leen a boole lépp kon bu ko njaboot gi xamee di ko dox loola dañ ciy sant rek ndax noppal sa kilifa dana tax a noppalu dana tax a amit la nga bëgg ndax sonal kilifa man naa andi fitna kon ku noppal sa kilifa bay boo ngay séntu noppalu te noppalu mooy noflaay bu am njariñ yal na ko yàlla def sëriñ Cheikh na nu boole mu am fu mu nu teg te fu neexoon ma neewoon doxe na neen ndax benn cër bi rek la te noo léppandoo waaye daa jël lépp teg fee jàppeenu kilifa di ko dox te di ko wax ba ku toog moom bu jotaay ba xawee gudd dara danga xam fam ñu teg kooku nag dañ koy ñaanal rek sunu borom dool sama borom doolu ñoo dimbali te àggalee ni sunu yéene ñun ñëpp ndokk nag ba nga mbooloo mii xamee te jëfe ko ndax man de xam naa ne la leen xel xelam la leen jox xelam ngeen def nii bu leen gëm ni kenn la kuddul sëriñ bi ñoo xame nii ñoo defandoo lépp bu seen a njaboot defandoo nii loola lu ngeen dekkal la waaye daa mel ni lu fi nekkoon la kon nag yàlla ñu si yàlla boole saxal waaye dañuy ñaan si barkeb sëriñ Fallilou nii ngeen booloo doonee ni benn lu ngeen yëkkateeti yàlla na sëriñ bi teg loxo ba mu jug ca kaw ba àdduna bépp ba àdduna bépp xam ni mbooloo mais ànd ak ñaar ñeeri benn leenu man booloo moo leen ko moo leen may sëriñ Fall dañuy wax ni aljamaahatu rahma boolee day yërmande la mag mu baax de wax ni mbooloo mu ànd nekk si jub lu dugg yërmande yàllaa nga ca loolu lay firi mu ni kon nag na ngeen xam ne booloo bii ngeen booloo sëriñ bi nee na neex na ko de jàpp naa nag dina neex sëriñ bi ndax daayira yeeg mbooloo yeeg daara yi sëriñ bi bi koy def bëgg a bennoo rek moo taxoon kon bu ngeen bennoo dàkk ngeen bëgg ak bi waaye nag mel na ni dal ngeen ca nag kon nag kon nag nañ ko seddale bu baax nag jàpp jàpp ci kenn ku ne gëmal ni yow rek mbooloo mi lépp lu koy defar nga nekk ca lépp loo jàpp ne ab safaan la bu leerul si yow sax laaj ko sa morom mu leeral la ko ngeen bokk sa dox sëriñ bi nee na sant na leen gërëm na leen liggéey bi ngeen liggéey mul alquran ji xasida yi salaatu ala nabi yi na leen leer ni mooy laytaayub liggéey bi kon nag lu ngeen ko gën a fonk day tax mu gën a baax rek addee jii ngeen ci boole yéen moom yéen a ko moom ndax sëriñ bi bi ci boppam bi koy jox sam koy def da leen koy dencal rek ba mu delloo leen ko kon nag na ngeen ciy góorgóorlu bu baax di si soññente te di ci am yaakaar sëriñ bi nee na sant na bu baax sëriñ bi nee na mi ngi yóbbanti waat nuyoo si sëriñ Cheikh di ko wax ni nañ def rek la Serigne Mountakha di wax nekk leen ci rek nekk leen ci rek jana day gën a baax rek day gën a neex rek alekum salaam wa rahmatulah Mbacke yàlla nga fi yàgg lool tëwër Alaaji Serigne Tàkk fi yàgg lool tëwër jërëjëf Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin Mbacke sëñ Tuubaa nangu leen ñaan ba tey si doon si li yebbu li la koy may mooy sàmm sa diine sàmm sa ngor sàmm sa diggante ak sa borom ku la wale bu mu xam sag bëggee ku la man bu mu xam loo ragal ku la yab bu mu xam sa mën a kaf bañ la man la yab la nit ku ku ne war na bañ bu sa ngor jeexee dootoo jëmu dara bu sa xol yàqoo dootoo am xalaat bu rafet ci kenn nañu jooyante sunu bopp jublu yàlla te bàyyi gaa yu baax yi ni ma ko wax ci boppam aj ko waaye tamit jëlee ko fa teewul ko fa doomi soxna mu doon ko càkk waaye xam ne ci doomi soxna bi ñoom li nga xam ne seen maam def na ko ci ñoom waaye li nga xam ne seen waajur ci def na ko ci ñoom mooy yaatu bi

kër si Cheikh Mbacke da ngay ñëw fii ci Ndiol boog saa yi daal di nekk ci àdduna bi waaye tamit ku mu ci wér parce que ba tey maa ngi ànd ak sama doom comme ni ma ànd war a moom démb ma bëgg ko laaj moom tamit nan la gisee loolu comme c'est la première fois bu ñu Touba il fallait que ba léegi yi di ko jaar moo tax ma di ko bëgg laaj tout le temps te affaire yi toll lay siyaare. seetalu seenu yow mu asura nañ ko rey ca néegi Karbala nun yaa ma yor bopp ba gannaaw bu dee wa naan seeyax la muusi naa seetal asan noonu ya dañ tooke mu daal di faatu sooke ña tooke dellu tooke baaxi dellu tooke seydi lahaabi diina taaxi sotu rasulallahi maazal kaazimiir ganeefu am ngor doomi yaasim tar nañ néegam ci kawam ci bagdaat tëj nañ ko ay at baat ba mel ne ak raat musa rasulullah

mu lu ma impressionné lu ma neex rabbi la dembati dellu di santaat yàlla baax naa kon kon lay jox kàddu gi suñu cheikh wala kan mbooloo mi suñu cheikh bismillah waaw auzu billahi min asheytaan rajim wa inni uizuha bika wa zuriyataha min asheytaan rajim rabbi auzu bika min hamazati shayatin auzu bika rabbi an yahdurun alhamdulillahi wasalla abada ala allazi bihi lana alhuda abada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi zawin ya wali yaa faadilan faddal wal xallaahu yaa man bihi faaraxanil imlaahu barkeb sëriñ Fallu kon ginnaaw bañ sante yàlla julliwaat ci yonent bi santaat xaadimul Mustafa ñaanal bu baax a baax sëriñ Muntaxa Bachiru suñu borom yàggal ko fi noonu lañu ñaanalee sëriñ Amdi Moodu Mbend Faal ñaan baax suñu borom yàggal ko fi di ñaanal lu ni mel kilifa gi yoonu Serigne Fallou di sëriñ Abo Baraka ñaan baax suñu borom yàggal ko fi noonu rek lañuy ñuy dikkee ñaanal la Mbàkke suñu borom yàggal leen fi lool ba lépp lu ngeen am naal boo xam ne yéen a ngeen ko liggéeyal Serigne bi suñu borom daal di leen koy mottalil barkeb sëriñ bi kon bu ko defee noonu la ñuy jaale rek wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbooleem suñu eh, mbokku taalibe yi ak suñu kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi di ci jiital baax a baax Mbàkke Bàll sëriñ bi di ñaan comme ni ko waxee léegi rek suñu borom guddaw saw fan saw fan lool. kon bu ko defee laataa ñuy tàmbali wax waxtaan wi rek dañuy jëbal kàddu yi ki nga xamante ni bii moom moo yor wàllum liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci saytu li nga xamante ni moom la daayira bi di dugal. ak di ko génnee ci wàllum koom ak xéewal bu ko defee mu daal di indi leeral ci mbir yooyu boo ko defee ñu ñëwaat daal di daal di daal di daal di sant baax baax kon bisimilah sëñ sëñ Ousmane Diallo nga xam ne moo mooy trésorier général bisimilah. waaye daayira bi ñoo ma tànn pour ma nekk seen trésorier ba màggal Touba bi wees euh, ci xayma euh, daayira bi. dajale na fi lu toll si deux millions cent quarante mille si biir deux millions cent quarante mille yooyu si lañ jëf dépense yëpp ba mu bañu yegg si fii nii si Touba lépp mu ngi ci biir euh, maanaam boog si wàllum ginaar yeeg wàllum collation ñu tuddee ko ay boison wàllum ndékkili wàllum fruits yi ñu fàggu ba wàllu caakiri yi wàllum beñe ak euh, ba ci gilem boo xamante ne fàggul nañ ko sëñ bi dajale nañ ko fii pour war koo jox sëñ bi lépp moo ngi ci biir waaw dañoo mënewul wax nag moo tax rek ma delloo seex euh, kii bi kàddu gi maa ngi tudd di jégalu kon bu ko defee Mbàkke ñu ne bi mooy addiye yi nga xam ne moom lañ doon fàggu ci giléem gi giléem gi incha allah waaw ngir ñëwul ko moom moo nekk noonu waaw kon jërëjëf Seydina Ousmane Diallo mi nga xam ne moom mooy trésorier général jiite wàllum loolu ñu ko waxee léegi muy saytu gi lépp luy dugg luy génn ngay sant bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi Mbàkke comme nun ko waxee rek amaana kàddu yi nga xamante ne bii moom la ñuy yëkkati du nekk kàddu yu bëri du nekk kàddu gu gudd ndax lot nañ ci lool lool lool buñ toogee seen kanam xanaa di sant bu baax a baax rek di sant bu baax a baax Mbàkke di ñaan suñu baram guddaw saw fan waaw ndax nuñ koy waxee rek roy eh, royukaay nga ci ñun Mbàkke dañ lay sagoo saa su ne waaw amaana lenn rek lañuy yittewoo lenn képp la ñuy ñaandu mooy nii nga bëgg nu mel rek nga ñaanal nu ko nu mel noonu ndax nu ko nu ko sunu maam Cheikh Ibrahima Fall waxee woon sëriñam ba rek sëriñ Touba noonu lañ koy waxee noonu lañ la koy waxee matuñu la ay ndongo waaye ñun nga am ñu lay ñaanal bu baax ñu ngi ñaan bu baax a baax nga ñaanal nu ba nga xamante ni ñëpp nga xamante ni bëgg nga nu mel noone suñu borom dimbali ñu ba nga ba bañu mel noonu ci barkeb sëriñ bi kon loolu moom mooy kàddu yi di santaat bu baax a baax mbokk taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ góor ak jigéen mag ak ndaw nuñ ko waxee boo xoolee daara ji bëri na ay tuut tànk waaye boo xoolee jëf ji du jëfi tuut tànk waaw ay jàmbaar lañ dañuy boole dañuy boole coono yi ak góor góorlu gi ak pas-pas bi waaw di di di di di di di teew ci daayira yi di nasandoo lépp rek ba lépp lu ñu bëgg li ngeen bëgg ñu koy ñu siy jéem a nekk kon ñi ngi santaat baax a baax a baax Mbàkke mbooloo mi góor ñi ak jigéen ñi kon bu defee ñu ngi tuubaat bu baax a baax kàddu yi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah kon bisimilah seen Ousmane waaw bu ko defee sëñ bi da doon sàkk pour ñu leeral addiya bi nga xamante ne indi nañ ko fi euh, gëlëm bi ñu ngi dajale dajale na na quatre cent mille addiya bi ñu nuyoo sëñ bi ñu ko nuyoo deux cent cinquante mooy addiya bi nga xamante ne jox nañ ko sëñ bi fii. jërëjëf ñu ngi tuubaat jërëjëf jërëjëf sëñ Cheikh jërëjëf sëñ Ousmane kàddu yi rafet na leer na lool sëriñ bi day day da leen di dañuy dañuy dimbali saa su ne ngir lu mel noonu képp ku toog ci jataay bi rek xam ne lii ñu seqoon ko liggéey nii ak nii la tëdde ba tax na sant nañ bu baax taxawaay bi rafet na yàlla na suñu borom doolu ñoo kattanal doolu ñoo may ak wér ñu doole ñaan la alaaj sëriñ tàkko suñu borom yàggal ko lool te wéral ko Euh, ba li mu yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa suñu borom defal ko si lu kawe njortam tam ànd ko taalibe yëpp rek xanaa ñun ñu doolee santaat yàlla bu baax si bi ñu suñu borom dimbalee ban waat li te am ñun ko nekkaloon ñoo xam ne ni yàlla def na doxe na sa coobereem kon nan santaat yàlla bu baax te gën a doolee góorgóorlu ni ko waxee saa su ñu jàpp ni ñu ngi dëkk ak sëriñ bi saa nañ jàpp ni ñu ngi dëkk sëriñ bi si sunu doxin ak sunu jëfin ñu ngi santaat baax di ñaan ci barke sëriñ bi yàlla ñu daje ngërëmal bi kon ñu tuub déglu kàddu yi sëriñ bi mu jottali bu noppee sëriñ bi defal mbooloo mi ñaan mbooloo mi sëriñ sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu ñu ngi sant yàlla julli si yonent bi sallallahu taala alayhi wa Tuubaa bu baax sant Cheikh Mamadou Fadal miin su boole ñaanal Cheikh Mamadou Muntaxa sunu borom yàggal ka dolli ko wér te bàyyi kam xelam bam eggale naal te eggale naal yu bari te àggale ko ñu ànd koog moom ak mbooleem njabootu borom Tuubaa gi bi nee na di sant yàlla bu baax di sàkku ñu ñaan la sëriñ abo itam nag yàlla yàggal ka ba liggéey bi ko Cheikh Modou Fadal liggéeyloo mu def si ba def si lu kawe njortam ñu ànd koog moom ak mbooleem njaboot gi barkeb sëriñ Touba muy ñaan nag képp koo xam ne sëriñ nekk na sab xol ñu di la ñaanal tawfeex ak taysiir barkeb sëriñ Touba sëriñ bi nee na xanaa mottali kàddu yi rek jëme ko ci mbooloom daayira bi ak soppe ak njaboot gi yëpp ginnaaw bu nu sant yàlla sant sëriñ Touba sant mi si Amadou Fadal mi sunu bunt si moom sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax mi ngi leen di ñaanal itam sëriñ bi nee na mu ngi dolla am xel mu dal mu ngi dollee am xol bu sedd itam ci seen liggéey bii toog naa fi wax ba tey ni seen liggéey bi amul kenn ku ñëwagul gannaaw bi ngeen fi ñëwee ba dem am lenn lu ma jàmbat lu dem si ngant loo xam ne def ngeen ka fi wala lu ngeen warut a def ba fii muy toog it nee na gisaatugu ko kon ngërëm la ak cant ga sëriñ bi nee na ma ngi koy feddali bu baax ak kóoliteef ak di leen ñaanal sama borom def leen ay mag may leen jàmm dolli leen sutura te defal leen ay xéwal itam yu bari di ñaanal wajur yi na yi ngeen bàyyi sa kër ga ak ñi dëddu ba ci waajur Serigne Madoune Gueye mii fi jóge tey sa borom doole taw feexal ñëpp kenn ku ne lam ca yellool barkeb Cheikh Modou Fadal sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax ndax xam na ni liggéey bi ñor na leen te kenn ku ci nekk def nga ci sa kem kattan naka jekk da ngeen ci daan góorgóorlu waaye mel na ni nag yokk ngeen a góorgóorlu loolu nag li ko waral mooy xam ni Serigne Touba rek moo fi nekk waxtu wu nekk boo nekkee ci moom da ngaa war a gën di góorgóorlu saa bu dikk loo man nga def ko ba def loo mënul waaye la si Abdoulaye waxoon rek Serigne Touba boo ko defalee loo boo ko defalee loo man mu defal la boo ko defalee loo mu defal la it jomb kon nag xam nañ ne lii ngeen def parce que ngeen doxee waaye man-man yi àggu ko waaye nag yàlla na fa àgg nag barkeb sëriñ Tuubaa sëriñ bi nee mi ngi ñaanal waa daayira bi yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñi ñëw ak ñi ñëwut ku ñëwut itam ku ñëwut itam xam nañ ni ngant la waaye ñoo ngi fasal ñëpp te xam ni sëñ Tuubaa rek moo nu boole mbooleem ku ci musa laal dara si daayira bi sëriñ bi nee na mi ngi lay ñaanal tawféexi sëriñ Tuubaa te di si am yaakaar mag ndax Pastef rek moo ñu boole ak bëgg sëriñ bi ak yaakaar ko ak wóolu ko ak doyloo ko ak nangoo sonn si moom sëriñ bi nee kon ma ngi sant bu baax. bëgg sëriñ bi nee na ba guddi nekk di tudd kenn waaye mu ngi ñaanal ñëpp de barkeb sëriñ Fallu danañ waxtaan bu baax gën a soññente gën a laabiirante lu ñuy gën a mën a jokkoo bay liggéeyal sëriñ Tuubaa sëriñ bi nee na mi ngi wax léegi bu soobee yàlla danañ waxtaan bu baax ndax adduna dafa bari ay mbubu moom mu ñëw ak nam mel waaye li mbubb yu bari bari bari mu si sëriñ Tuubaa jot dana ko fóot ba mu set wecc mu solal kam ko war a solal kon nag nañ xam ne loolu gis doxeenu àdduna la rek waaye lépp dana jeex sëriñ Tuubaa danañu dimbali ñu liggéeyal sëriñ Fallu am nañ ci yaakaar baax a baax nañ yéene ñëpp jàmm di ko waxante di ko defante lu xew itam nan ci ànd itam ak rafet njort te xam ni lu nar a yàqu sëriñ Tuubaa dana ko defar ba ñëpp doon benn ñu ànd liggéey ko loolu mooy gëm-gëmam seytaane nag daa bari doole fu ne lay jaare waaye fu ñu ko ubbi lu itam mën na faa bañ a a dugg te fu mu dugg itam bu ñu bokkee woo sëriñ Tuubaa danañu ko dàqal ba lañ bëgg mu def ko nañ góorgóorlu bu baax di waxtaan bu baax bañ a nëbbante bañ a jëwante bañ a jeyante def sëñ Tuubaa muy suñu lépp lu xew itam ak lu mën di doon nan ci ànd ak ak tekk ànd ak ak ak teey te bàyyee Serigne Touba sunu bopp te xam ni Serigne Touba dana si ubbi buntu boo xam ne dinañ mën a jaari sa loola junj nag day doy boromam xel waaye lépp dana baax nan jàpp rek te teey tuuti sëñ bi dina ubbi buntu boo xam ne bu ñu ko jaaree lu naroon niru lu yàqu jàpp na nañ dana mën a baax dana ñu mën a wéyal sunub liggéey nii ngeen di def nag nekk leen ci di liggéey engagement yi ngeen jël bu leen ci deltu ginnaaw nekk leen ci ba ndimbal ba ndimbal di ñëw ban ubbi buntu kenn ku ne jàppal ni yaay jëwriñ liggéey bi ba ci kanam lépp dina baax incha allah bu neexee yàlla yàlla eggale yéen seriñ sëriñ bi ne mi ngi sant góor mi ngi sant jigéen mi ngi sant mag di sant ndaw bu ñu ànd mukk ànd ab jaayante sëriñ Tuubaa nee na ànd ab jaayante ànd ab jëwante di jaayante inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek lay mujje àndub dëgg alhamdulilah rek lay mujje kon nañ ànd si dëgg rek bu kenn taqal sa morom bu kenn waxal sa morom lu dul noona bu kenn yéeneb safaan kenn nañ yéenente jàmm te muy dëgg si noonu ñu bàyyi suñ tubaa suñu bopp sëriñ bi nee na danañ waxtaanaat bu baax bu neexee la yàlla na yàlla égale yéen yi jërë ngeen jëf barkeb sëriñ Fallou nan tàlla looy te nangu ñaan lépp lu waay bëgg nax si ñaan fanaan na jiim xontu fanaan na ci ay doj ànd ak Babacar lu nekk muy daj fab nañ ko ko ci biir sarwaan jox nañ ko tooke teewu ko doy kéemaan bisub keroog la yàlla wàcce saaru naas ak fallaxi mocce ko xayru naas bisub keroog la yàlla daaneel keefar yëkkati lislaam li doy na yàlla ñu yàlla boole ci yoonam baa bi jaayi Seydina Muhammad Rasulullah وهب لنا الرشد والتوفيق من كل